sant xam ne ñu bàyyi xel la leen wax ni tey jii dañu dalal gan boo xam ne ku ne xam na ko muy Soxna Dieng ñëpp xam ko muy ñu naan ko Tan Soda nag tey jii dañ di di leen ziar di di nuyu ñëpp di leen sargal ci invitation bi ngeen ma invité di ñaanal xalif général des mourides mu yàgg fi te wér di sant sama sëriñ sëñ Abdou di ko ñaanal yàlla yàq yàlla yokk leer waaw jërëjëf comme ni mu ko waxee tey jii ñu fas yéene dalal Tan Soda tey ñu fas yéene def li nga xam ne ni mooy débat politique Tan Soda ñu lay laajte maanaam ci parti APR maanaam yow jamono ji nan ko jàngatee waaw li ma jàngate parti bi mooy parti bi fa temps yi dafa am problème mm-hmm. te wolof nee na tegale bu dëngee te ba jiitu la APR moom am na problème bu rëy Touba parce que kenn àndutee ak sa morom. ku ne yaa nga jëm fee. Mm-hmm. Mm-hmm. ba parti bi daal moom normalu Touba moom. ki nga xam ne tamit mooy Macky Sall tournée yi nga xam ne jamono ji mu ngi koy def ci région yi yow maanaam yow noo noo ko gisee. ah day dem defaraat parti parce que coowul parti bi région yëpp région yëpp am problème. Mm-hmm. région yëpp ñu am problème kon laaj nga mu dem. mu dem defaraat parti parce que 2007 ba PDS yàqu moo ko defaraat kon war naa mën a defaraat parti bi. waaw jërëjëf di di la laaj tamit benn question bi nga xam ne ni mooy euh, ministre yi nga xam ne ni wàcce na leen muy euh, Abdoul mbay ak ki nga xam ne mooy Mimi Touré maanaam ñu gis ni day changé di di bu teyee mu yéegal kii bu subaa mu wàccee kee yow maanaam yow loolu noo ko noo ko jàngatee. xam nga loolu Abdoulaye Wade ko fi njëkk a def. Mm-hmm. bala ngaa xam ku mën ak ku mënul il faut nga essayer. Mm-hmm. dafa essayer ñu tële mu seet yeneen waaw ñu tëj point boobu ñëw ci ki nga xam ne ni mooy euh, Karim Wade procès yow maanaam moo ko gisee procès Karim Wade xam nga Karim Wade moom mhm. li ma waxoon rek mhm. maanaam lu ko bàyyam bëggaloon ci fukki at ak ñaar mënu ko ko réussiral mhm. ñoom réussiral nañ ko ko ci deux ans parce que daan ko ko bañoon tey bëggu sénégalais mu bëggul kuy tox toxal nii bëgguñu ko parce que Macky Sall mii boo gisee moom am sens dàq ji ko Ablaye Wade dàqoon woo ko dig looloo waxal Sénégalais yi jóg ñépp jóg ànd ak moom man audit mosuma cee d'accord tey mosuma cee d'accord ëllëg parce que day tardeel liggéey daanaka lu tardeel seen liggéey ci audit yi la waaw waaw damay euh, jàppandiwaat kàddu bi nga xam ne ni mooy euh, procès Karim Wade bi ci lay insister ba léegi parce que dañu gis nii bi mu jàppee Karim ba léegi ñun jàpp nañ ni gisaguñu résultat boo xam ne ni war nañu jox firnde yu leer nañ wala mu teg ci avocat yoo xam ne yi tamit euh, dinañu wan ñu fi nga xam ne mooy fi ñu war a jaar ak solution bi nga xam ne ni moom la war a def ba Karim Wade génn ci kaso bi ah, loolu affaire yi justice la toppee ba xam ne kii di ñu koy toppee defu ci dara mhm. danañ ko bàyyi xam nga xaalis bi ñu leen di toppee duñu ko gis. Mhm. xaalis yi newut ci banque. Mhm. xaalis yi mu ngi ñu def ay kaaw def ci seen i kër. Mhm. duñu ko gis ala li alin buñ ko doon tëj 10 ans yi duñu gis ñaari dërëm. ñu ñëwaat ci ki nga xam ne mooy Moustapha Cissé Lo nga gis ni maanaam moom commission bi nga xam ne ni moom la yoroon fii Touba nga gis ni dara doxu ci ñu laaj la yow tamit maanaam nan nga jàngatee Moustapha Cissé Lo nekkam fii ci biir Touba. xam nga du dox li tax mi euh, euh, euh, liggéeyam doxu Touba. dafa fekk ñoo xam ne dañoo liggéey sonn ci parti bi ñàkk mu waxtu pax bu mu xóot mu suul ca ñooñe ne day day jëriwaat ñeneen soo xamee ñi nga xamutoon rek ña xamoon dañ lay réer waaye loolu ko ko gën a ñu ñu itam ko ni ko nag danoo àndoon ak moom muy bay muy rajo muy taaliboon ñuy àll tey ba njariñ ñëw mu ne ñooñu ma àndaloon ñuy ñàkk dama leen di paqueté teg leen fële dem jëli ñeneen loola lan lank ba tëdd ci naaj te dañ cay demal ak moom ba jeex ñii ñu def ba daaneel élection yi. Mm-hmm. noonu la ñuy def ba daaneel ak. Mm-hmm. te moom sax nee na bàyyi na coordinateur bi. Mm-hmm. waaw wax Moussa Fallou sax jërëtul nan wax ñeneen rek. waaw parce que boo gisee ma indi euh, débat Moussa Fass. waaw donte comme li mu fi nekkee woon biir Touba affaire commission bi moo tax ma posé la question boobu noonu. pour maanaam bu fekkee am nga kàddu yoo xam ko ciy leeralal tuuti rek ñu xam. xuloo ak ak saaga nit ñi mu gis bëgg laa jàpp njàpp. man moom ñu mu gën a dëngoon may tedda liñ ma ndax moom la mu bëgg ala kulli alin du ma ko nag man kenn du ma not du ma jaam maamam jënd tool sama maam man jaam loolu doonu fas dama cay war di dawal li ma la wax mooy li mu def ànd ak ay nit ñu sonn te nag boo àndee ay nit liggéey dara nga ne ñooñu dinaa leen tàcc naaj ba man ma toog ca ker da ngay wax rek waaye doo ker ga doo ca toogee jàmm mooy lii am tey rek boo añaanee saw doona rek saw dee ñaaw waaw yow yaakaar nga ni maanaam APR ñoom dinañu am deuxième mandat yow yaakaar nga loolu fii ci Sénégal. ah yaakaar foofu ba dama jógul ilimaan yi na mu defoon ba am premier mandat. Mhm. xam nga nguur yàlla koy fa. Mhm. kenn ku ne la mën a fal nguur da lay nax nguur ku borom mbaar mi amut jën mooy fal nguur. Mhm. Macky amut problème mais entourage am moo wax naa ko ko fii ci màggal gi fii nee naa ko mm-hmm. màggalub daaw nee naa ko sa entourage moo bon député yii nga fal fii mm-hmm. soo leen yaakaaree Touba dootoo fi am ñaari dërëm ndax liggéey luñ ko ñoom ñépp a yem mm-hmm. lu ma wax Moussa Fall yow ko fëriñ ku tekki dara newut seen bopp lañ gëm faalewul nit ñi duñ seeti ku leen woo téléphone duñ la jël te buñ demee assemblée yàlla ak doomu aadama yee tax ñu dem demaat dem assemblée comme ñoom nag ñi nekk nañuy député faaleetu nit ñi ñu ñu toog di leen seetaan ba xam ñun mën nanoo dem sans ñun. yow gis nga ni ndax euh, ki nga xam ne ni mooy mu Moustapha Niass yow gis nga ndax mu ngi jàppale Macky Sall am déet. lu ma xam Moustapha Niass moom laay bañ koo ko wax. Mhm. Moustapha Niass mi toog fii Sénégal ñépp di ko dégg. Mhm. mu ne à chaque année ma am 5 milliards. wax barki dem yéen a ko seen bal fa ñun waa waa Kër Madiabel gëm génn nañ ci télé. ay école yi école yi école yi sàkk sàkkati fa. waaw kon milliards yooyu lu muy jëriñ mhm. ah. nit lañ koy nawee mooy fa mu dëkk Tanor bu ko nawee yéen a tax ñu naw ko. Idrissa Seck Thiès da leen di def li defal lu leen kenn musu defal ñu naw ko. Macky Sall da ko defal waa Fatick. mais Moustapha Niass kër ma jabel gëm dëkk Moustapha defal ab robinet Moustapha defal ab ab ab ab école. barki démb leen génn ci télé bi fees jabel di ko yàq lu ne lu mel ne moom suñ bay ci bay ci sa wewu tànk. gërëm mbokk. ak fa nga dëkk. keneen ku la gërëm fi waaw tamit damay ñëw rek di wax ni euh, ñu ngi wax waa Sénégal nee nañ euh, politique bi ba léegi doxut mi ngi mel ni nguuru Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee léegi ak nguuru Macky Sall gis nañ ni changement amut parce que nit ñi ñu ngi am ay jafe-jafe te it ñu ngi nii di waajal li nga xam ne ni mooy euh, màggal Touba gi yow peut-être di nga am kàddu yoo xam ne tamit di nga ko ci sànni nga gis ni jafe-jafe yi ba léegi. ñu ngi koy jànkonte ñu nit ñi moom sonn na fa sonn commencé ba fa mu yem nit ñi moom sonn na. nit ñi moom danoo sonn wax dëgg yàlla nit ñi sonn na. ba pare nag du Sénégal doo ngay loolu de. soo ko seetee ci étranger ñi dem di mode kenn ku ne la nga daan def xaaj ba xaajaat ba mën a toog. crise bi mondiale la. du Sénégal rek. mais Sénégal moom lii ñuy dund. ak yàq lii ñuy dund. kenn tegu leen ko ku dul Ablaye Wade xaalis réew mépp moo ko pasar pasare ndax lu téeméeri nit war a dundee nga dara kenn jox ko lu yàq ci réew ma yàq yàqu moo yàq jikko yi moo tax sëriñ si ne ci rajo yee kenn nga la la li au lieu ñu dem ca daara ya di jàngale ak naan la sëñ Touba santaane woon ñu def te ñu ne ci rajo yi di tagg Ablaye Wade ak tagg Karim Wade ku nañu tagg la xaalis réew ñii Macky Sall jëfu ci ñaari dërëm fekku ci réew mi ñaari dërëm Ablaye Wade day yàqate xaalis bi moo ko ministre defuñu ko ci ay banque ne kenn du ko gis ma nga ñu defi kaaw nga ci seen biir kër. Mhm. kon loolu du yomb gaaw yomb saafara. dëgg la waaw comme kàddu gi ni nga ko waxee rek dama lay euh, posé waat benn question di la wax ni tamit euh, bàyyi leen xel benn image boo xam ne nii maanaam. dañu doon wax ci ñi nga xam ne dañuy yàq xaalis ci xel yeeg yooyu noonu loolu keroog Macky Sall ñu ngi génnee affaire bi ci télévision ñu di ko wax yow gis nga ni ndax loolu c'est pas normal wala c'est normal. xam nga loolu rafetul yooyu itam ña koy def danañ nañ seen xeex. ñu sax ci ñoom wala ñun war a dimbale ci ordonnance wala lu nu lekk te dimbale wuñ man loolu maa ngi ko contre avant Macky Sall di ko wax. maa ngi seetaan fii. nga taxaw ci ci coon sekk wala. waali balaago wala ci ñeneen mm-hmm. ay kumba gaw la ku ne man loolu dama koo compte takk deux millions taxaw di ko joxe ba mu jeex te dend ak sa xeet boo xam ne nii boo demee ma nga am problème amul kër gu dëkk wala amul su lekk mm-hmm. loolu mm-hmm. soo ko defoon pari vingt cinq mille cinquante mille sax pakkate ko ci enveloppe seen néew ji doole nga jàkk dendal nga jox leen loolu la yàlla nangu waaye yàlla bëggul yàq am yow Macky Sall gis nga ni mu ngi dugg ci région yi di wër ñi nga xam ne ni tamit dañuy euh, xool maanaam politique am fu mu toll mais heure bu demee ku nekk parfois am na ci ñoo xam ne dañuy génn ci mbedd yi sax di di di am geste yu ñuy def ñu ñu wax ni affaire yi doxut parce que Sénégal crise mondiale nga wax sax mais ñëpp xam nañ ko ku ne xam na ko léegi fi mu ne maanaam màggal Tuubaa gi nga xam ne nii ñu ngi koy waajal est-ce que ñoom li ñu wax li ñu promettre li nga xam ne ni mooy population Touba yow jàpp nga ni ñoom dinañ ko dinañ ko dinañ ko saafara. waaw màggal Touba moom mag Macky Sall nag moom lu mu ca war a def chaque année bu ñëwee da ko tey def ba def duubal ci sax année bi mu njëkk a toog li Ablaye Wade daan joxe ci ceeb Macky Sall joxe na duubal waaw moom lu mu war digganteem ak Touba lu ko war mi ngi koy def waaye nag xol la ci dëkk moo ciy mucc xëy na am nañu ko fi bëgg te ko bëgg ba illa yow mi ji ndax malet moom Macky Sall moom ay malet bi ca def cent millions ki deux dem di ko jox kenn waaw dama ne lim fi amoon dafa àndoon ak ay nit ñoo ñu jël seen i risque ku mel ne man mhm. si le docteur mhm. Abdourahmane kii Moustapha Sylla mhm. naata Sylla man Sore Dieng madame Ndiaye bëgg fallu ñooñu ñëpp ak Mor mbooloo to ñii mu ñii mu fal ñii mu falu tële lépp mbooloo député yi mu dox kos mënul tunoo dajale ñetti nit Touba bu fekkee ne ñoom la yem dama ne booy bu mu bañ a seetu deuxième mandat duñu ko liggéeyal dara xam nga da xool boo ko barki dem ba assemblée sàq mi si moom Hollywood lan fa nekk ak xoole njubal seen i njubal député yi góor sax ñoo tane yu mhm. jigéen yi moom ci seen bopp lan ne moom ñoom xam xatte na ne sax aw askan na leen fal ña nga ca Dakar tëdd mhm. di ñawlu seen i tay seen mel ne jàpp di wëree loo ko ten ten dàpp fàtte woon ne askan wee leen fa waaw waaye defuñu ko kenn seen bopp lan ko def boo jaaxaalee di saw bala ngaa tooyal kenn tooyal sa bopp bi di la wax ni tamit yow gis nga ni Macky Sall fii Touba am na ci ñoo xam leen jëloon teg leen ensemble yow gis nga ni changement dina am maa la wax ni benn ci man mii toog man nii mhm. li ma liggéey député liggéey ko te risque bi gën a garaaw ci yi laa jëlal Macky te boobu risque moom xalaatatuma ko ndax golo bay baa mu dund moom jeex na ma ni kay responsable yi mag yi ne fii bu leen recevoir bu waxut ak ñoom booy bu mu xam ne fii pere ne fi gis nga ñee mu jox seen xaaj sëriñ soosu muy recevoir di leen joxub xaalis seen xalima ñawoon wala ñu man dara moom du toppat bu ñëwee fii Touba au lieu mu recevoir responsable yi li Ablaye Wade daan def woo ay député woo ay responsable yi am mbooloo recevoir leen jàppale leen ci magal bi moom bu ñëwee ay sëriñ ña ko gënoon a kontaan ñooñu lay recevoir ñun nag ñu ko xaar man def ko ren man de bu ko defee ren mu naan xaw ma kan waaye man sama diggante ak moom fa la yem ca kër sëñ Touba ga laay defee conférence de presse walaay démission man golo boy ba bu dundee li mbët a bëgg politique santul mbàkke santul faal santul si jàkkay làmbe la bu guddee ku ne dafa taal sa sonne dana koo sonnal ñaqal ko ma am sama restaurant mm-hmm. abandonné ko ba mu yàq mm-hmm. ngir politiqueal Macky Sall mu def seet ñeneen ña nga xam ne danoo tëddoon ci seen lal fas seeluñ ko mooy añ bii tey loolee mu def mooy lii mu añal mu jël ay député yoo xam ne wàcc leen assemblée xulli ko yëy si la fa PDS mu dem jox ko ñeneen looloo ko waral topp mu safaloo mi nga xam ne ni tekkiwul dara soxor la def añaan parti bu mu ne tas ko ba mu nekkee PDS nii la fa nekkee woon tey bi mu nekkee affaire noonu la fa nekk man sama yoon newu ci coordonnateur xaw ma ku muy def coordonnateur waaye benn doomu aadama buy noyyi fi dootuma coordonnateur man maay sama coordonnateur bopp. waaw te nag jekk naa pour opposé ji ne fa lay mujj ak ñoom ndax man ba seen mbaam ba seen sagar nit pour man damay jàpp ni yow gis naa ni am nga yoon boo xam ne ni war nga faa mën a jaar ba Macky Sall mu recevoir la ngeen toog waxtaan nga wax ko fi nga xam ne nii maanaam gis na ni entourage am ñi ko entouré ñëpp maanaam ñëw ñu di ko dimbali ci benn côté yow gis nga loolu. moo la ko gën a xam moome moo la gën a xam ne ent boo gisee muy dàq ak wàññi xam xam naa ne loolu entourage am baaxul. Mhm. entourage la bon ne la daloon Ablaye Wade ci 2009 fa Ablaye Wade tolloon mhm. la Macky Sall toll mhm. la toll bon amul ministre bu baax amul député bu baax. ñëpp a ñëpp a yem. koo ci woo la jël. koo ci bëgg audience du la wuyu. wala ngaa dem ci Macky Sall il jaar ci ministre. baa nga jaar ci député ñun député yi ñu yor ñun ñoruñuy député ñu benn député bu la mën a lijël kenn bi ma magalu Touba ñëwee kenn koo xam ne nii da nga jël ci say responsable kenn wala ñaar audience leen te président amul man may reyante di buuxante di defante ba gis mais du kenn koo xam ne nii mooy lijjanti di groupe boo nekk ay responsable yoo xam ne nii dañ laa liggéeyal ci dëkk sonnal la fa xeexal na fa kulool la fa bi Ablaye Wade ñëw ñu pomp ba fii gaas bu màggalu Tuubaa ñëwee doo def liste di leen woo xanaa guru bëgg leen a guru ci saal ne fóotu àll man duma guru boo kenn ci saal daaw damaa lànk te ren bu ko defee damay lànk ren moom bu ko defee ca buntu ko Sëriñ Tuubaa laa jibi sone jekk naa moom rek laay xaar man duma seen mbaam bu ñu bëggee mbaam moom ko wuti politique du mu li mbëtt bëgg la bar bëgg bu dee bar bu baax te li may kaas kaasuma ko man dong responsable yooyu ma lim ñu sonn ci parti bi ñàkk ci seen alal di jaay seen i pàkk ñii di dem Espagne ak Italie di di di liggéey ñàkk ci seen xaalis ñoom ñëpp la kaasal benn jigéen boo xam ne nii liggéeyal nga Macky Sall fii bu mu defar dara fii amut xanaa mel na maam kër yi moom foofu la député mhm. waa du keneen maga at ba atat nga ñëw màgg di jël ay fukki junne ko juróomi di ko jox ay nit lu fukki junni mën a faj wala juróomi junni te ay mbooloo topp sa ah sax ko gën ñu xam ne ne woo pouvoir parfois da ngay ñëw bëgg a toog ak Macky Sall nga jaar ci ki nga xam ne ni moom lañu jox responsable bi nga ñëw jox ko li nga xam ne mooy sa message mais est-ce que message boobu noonu am na ci ñoo xam ne duñu jàllale message bi. duñ ko jàllale looloo tax ma ne ne entourage sama baax. Mhm. nee naa la fa Ablaye Wade tolloon 2009. Mhm. ñu ko te bëgguñu ko. Mhm. fa seen intérêt personnel moo leen tax di jóg ñoom ñëpp nag laa du ma ni kii du ma ni Jean du ma ni Paul du ma wax Moustapha Lo dong moom ñoo ma yem ñoo yeneen député yeeg Moustapha Lo yem dara lan liggéeyatu fi defu fi tous liggéeyatuwul Macky Sall pour keneen defu liggéeyatuwul keneen ndax am xarit yi nga xam ne nii mooy député bu jigéen mosu ko ba mais ñoom assemblée yaa ngi gis député bu dëkk Touba taxaw kaas dara wala mu waxal waa Touba mais loolu député moomal leen rek moomal yu leen fa yóbboo ñu taxaw di xool di nit kaas ñu dara duñ kaas dara parce que defe naa nekk ci kaas ni dàq la gëmuñu seen bopp mais buñ leen dàqee ñu jàpp la bay daal dundee ba saxum si su goree mën na caa jàpp ba xëy dee man dara am taw lu ma am jëm ba ma yàlla di bind tàggu Macky Sall tàggu Moustapha Lo tàggu ku yàlla bind dama bind rasam yi ndala pour sa ku jàmm ya man ragaluma gentu dara dara dara dara dama mu bëgg ko jël musuma ku bind bàyyi parti socialiste ba nga xam ne sama mag teraanga bu ne am na ko fa ministère bu ne géré na dem ànd ak moom mais rëccu naa tey lu ma bàyyi parti socialiste dem ànd ak Macky Sall waaw parce que gis nañ ci maanaam bi nga dalee politique ak Macky Sall yoroon nga fii restaurant yooyu yëpp gisoon nañ ko fi mu dem ba jëmmi jamono tamit gisatuñu nga yor li nga xam ne ni mooy restaurant bi lépp rek pour topp li nga xam ne ni mooy politique bi dimbale ki nga xam ne ni mooy Macky mais dama gis ni dama ragal ni Macky Sall ba léegi fayu naar bu xoromam. déedéet fayu naar bu xoromam li ma ko liggéeyal moom fayu ma ko. Mhm. na ma ko liggéeyal ci Touba gii. Mhm. moom Touba gépp dama ne la téeméer yoo fi wàññi juróom-ñaar fukk maa suur Macky Sall ndax ko wax mu ne ndaw si goor ñi dana ndaw si li mu liggéeyal Macky Sall ak risque bi mu jël ñun Macky Sall bett na waaye ma ngoog am na loo xam ne boo ko defee nii ci biiru judd def ko ko ci biir soppa def ko ko ci biir noonu ah waaye boo wéetee bay ba nga a rey naa li ma def kay moom doy na sëkk sama ngor nag may ko ma jóg ne dama koy politique xalaatuma ko toog lay def le tant que recevoir recevoir yeneen responsable yi mu doxul ak tànk ak morom jëndatuñu ko ko fas. su mënee ne yaakaar na ñeneen. xam nga Daara Xuddoos gii maa fi tàllaloon sama ñaari loxo du ku yàlla bind. du góor du jigéen mel na man maa tàllal sama ñaari loxo ni Macky Sall. nekk fekk jigéen ñi PDS bi xapaabal di raadam moom ba dem ak ñoom boîte vocale. daaneel leen jël pouvoir ba li si ñëwee ba Moussa Fall loolu def ñeneen la dem def lépp. ma dog sama tànk tubay ba daaneel daaneel liste ba. nekk liste bi du jàpp. ma xeeb ma yàpp ko xam nga nit lu koy nag mhm. góor am mhm. ne koo ñëwutub aawam doo ko may ñaari mel ni jigéen boo gis PDS mu dem APR mhm. doo ko gis maa tax ñoom ñëpp maa tax ñu suur si dafa toroxal ñi ko fi liggéeyal dama ne la du jeex am na sëriñ soo xam ne dañ koo bëggoon toog fan toog yéen seen i kurus di ko ñaanal mais ña ko doon xeex di taxaw ci seen yi di wax ne bu kenn wax wateel Macky Sall nan wateel Abdoulaye Wade tey ñooñee la tampaloo ñooña lay jox alalam moom jabaram fondation bi bu mu duggee Touba ñooña la lay jox. Mm-hmm. ay man tey la ma leen di préparé te buntu kër Serigne Touba ja laa leen di koy xaar. Mm-hmm. ba nu recevoir kenn bañ ñoo recevoir ñu responsable audience du fa am de. Mm-hmm. waaw ba tey damay euh, ci ci débat politique bi ñu waxtaanee li nga xam ne ni mooy élection locale yi nga xam ne jàll na ci ginnaaw maanaam ñu gis tamit élection locale yi ni mu demee fii ci diggante Mbàkke affaire yi ni mu demee woon élection yi am na ci ñu bëri ñoo xam ne nit sax mujj ñu dem voté ji ñu maanaam ci population bi nga xam ne ni jóge nañu diggante Touba ak Mbacké war a dem voté mais bureau de vote yi am na ci yoo xam ne dañ ko tëj bi 18 heures jotee kenn am xam ne ni voté wu mujj ñu voté yow maanaam loolu nan nga ko gisee élection locale yi nga xam ne que ñu ne fuite bi ci Moustapha Cissé loolu jógee. loolu mhm. moom de gis ma ko bii mal dara. Mhm. lu nu ko waxal moom waaye li mu doo def lépp tey gis naa ñu yàlla tey jii la sol bras yi doo tërpatoo sol la kos dóor ca kap seere dalla ba mu dëgër mu yor liif de ba croisement jam ñaari mu taxaw dama ne la loo bokkoon téeméeri nit ba junni nit liggéey ko nga ne man dong a ko dërëx nii rek lay demee ça y est mu ko yokkatu lu ma xam politique moom ci région de Diourbel pare na xanaa beneen région te xoolal élection locale yi nga jóg départ Dakar ba dugg Touba benn dëkk la fi Macky mhm. ko histoire Sénégal naggal ma bokku ci mhm. kon war naa seetaat boppam na ba PDS yàqu 2007 mu ko ba mu demee élection mu gañe mhm. su ko defee parti bu baax mais topp kenn nit rek ni kii mooy sama maali ki yow mu jiiñ kii laay toppatoo kii laay waxal kii laay nangam ñun du maamu Moustapha Lo de te duñ mas a nekk baabam ila yow mi ji xaj ak morom ji dootuñu ko ko fas. Mm-hmm. na dem ñeneen. bu gisee ñeneen ñu nu mën na dem seeti ñoom. Touba moom kenn mënu fay dem te jigéen mm-hmm. waaw parce que man mii euh, maa ngi far ay kàddu ñuy wax ne maanaam Moustapha si Lo lu xañ Macky Sall biir Touba moom ci la bokk. amul te de li dinaa la tegale bu dëngee ba jiitoo mm-hmm. ñii nga xam ne ñii ñun responsable yi xeex na si mu daal xeexuñu Macky Sall mu sabaloo la ni xeex parce que bu gañe woon fi tekk daal man kay nee bu jàllee ma xaj Serigne Touba ak koo ci mënta jiital ku sant Mbàkke ku sant Fall ku sant Thiel bi day daal ñëwaat ci ki nga xam ne ni tamit mooy Macky Sall dama lay laaj yow fi mu ne nii ban conseil nga koy jox jamono ji li ma koy conseil mooy ña nga àndal di xeex mhm. ngay bay ñuy radu mhm. ngay taaliboon ñuy àllay mhm. sonn ca ñaq ca bu ñëwee bu ñëwee ci dëkkub Serigne Touba bi kenn du ko ni doo recevoir Serigne ndax kenn mënut a dem sans nga woo leen recevoir leen seral seen i xol am na ñoo xam ne boo tàngalee seen i xol doo am jàmm ilaa yow midi mm-hmm. kenn néewu ko bu mu defal sëriñ si mm-hmm. ndax état mënut a dem sans sëriñ sëriñ mënut a dem sans état mm-hmm. mais nag nag ña bokk boole leen ci boo sëfatee jileem ba mu ne si biir ci boole baam yi ci alal ji la waaye bëgg a topp bay côté rek ña nga àndaloon démb ak barki démb sonnal la lu la ñuy defal la nga bëgg leen a boycotté rek boo ñëwee màggal daal ñuy dugg ak ah, recevoir. ñu sant Mbàkke dong nga fa gis ñu dugg. ñeneen ñi des ñu send leen ay policier man benn garde corps dootuma ba ma wax benn garde corps dootuma la xalaatatuma ko ci àddina Macky Sall jaraluma ko kenn ku yàlla bind sama juddu bii dama ko foog sama deret sama gënal milliard ba ma juddoo ba nëgë ni kenn yebbu ma damay liggéey di daal sama doole politique du tax ku yàlla bind yab am na responsable yu bëri nag màggalu Tuubaa gi ren lan koy xaar su leen recevoirul moom mbay mu xam ne pare na ci ñoom. Mhm. te bu paree ci ñoom mbay mu xam ne pare na ci opposant bu gën a te dala dala ko gañe fii Touba. Mhm. Ablaye Wade boo gisee mu am Touba dafa fonkoon jigéen ñi mhm. dafa fonkoon jigéen ñi bu ñëwee daal di recevoir ay député kese day woo ay Modou Diop Moustapha Sall Sall Dieng ñoom ñépp da leen da leen recevoir. mais nga ñëw rek jël say député ne ca biir ñu wax dañuy wax dara du ko am. di di di lobby rek la wax lay dëgg ca dëkk ba défense baare nag ña nga xam ne bu ñëwee wax dëgg ñu baare yi man bala ma baare yow ma bàyyi ba muy génn di julli ji jumaa ma dem kat te man Macky Sall bu ko ne jëy sama loxo ku téeméeri nit taxawoo ne dana dana doxal tànkam ba ñëw dox ma xam na man may kan xam na la ma ko liggéeyee xanaa say-say yi ko wër te tekki ñu woon dara ñoo baadoola di baadolay taaraar yoo xam ne nii xamuñu nguur sagar nit yu tekki mu toon dara lan amuñu woon Mercedes amuñu woon gañi laa tey bi ni nekkee ci pouvoir lañ koy sooba dal yu baax amuñu ko woon looloo leen tax a waaw comme conseil bi nga jox ki nga xam ne mooy Macky Sall léegi dañuy jàll ci ki nga xam ne mooy Marème fay ma dégg nit ñi tamit ñuy am kàddu yoo xam ne tamit dañ ko ci wax ñuy wax naan nee nañ Marème Faye moom moo jiite li nga xam ne ni mooy Sénégal yow maanaam a yow noo ko man Marème xamaluma ko dara. ñun jigéen ñi Touba daal li ma la xamal ni Marème Faye ñu si ñoo jox ñaari dërëm. musuñoo may musuñoo sarax fondation bi day dugg Touba toujours ñu ko gis mais la ma la wax rek ñeneen lañ koy jox mais ñun jigéen ñi sonaloon borom këram bu doon te loolu dama tax mu jóg ñun jigéen ñi sonaloon borom këram fii la ñëw daaw ku ne mu laa na sa tur sa numéro mais booba lañ ko gëj a dégg ministre yi mu fal ko wax ministre yi kay taxaw ne ma Marème Faye moo tax ñu fal ma ah, man na bu dee Marème Faye tax ñu di ma fal wala Macky moo ko Macky Sall man bokkuma ak ñoom ñi àddina ba mu futa di bawol du ma am ak ñoom ba mu bokk man sama ñaari maam yépp jañ la sant bete bete ngeen bi laa garmi laa daal deux côté dara la ñu ma dem fay defalu fondation defalu nu dara jëkkëram defalu nu dara ministre yi fi fal defalu nu tos bu ñu ñëwee ña ngay xoggale ko ci seen i kat kat climatiseur di leen ut waaye ñoom amuñu xel ku réere ca lay dëkk te nag jabari ndono soo des góor boo neleween waroo yàlla fukki at ak ñaar yi fi amul xoolee ak ak sëñ Mbacke Ndiaye ni seen yaram yu furee léegi ah war na loo xam seen bopp. xam ne foo mën a jaar ba tarxuus su fa gileem jaaree dana yeesal. waaw yow jàpp nga ni maanaam ki nga xam ne mooy euh, Marème Faye jàpp nga ni un jour dina ñëw fii biir Touba recevoir yéen xam ne nii yéen a sonaloon borom kër. bu ko defut la bay daan dundee rek li ma la wax bu saxul sikkiñ bu goree mën na caa jàpp ba xëy de te xam ne nguur guur googu yàlla day fokk. ñu ngi toog di leen xaar mooy li ma la wax rek. nee naa la fu mu bu tarxiis boo gi leen jaaree dana yësal. ayagam ñu fi am fukki at ak ñaar di bonde. di toji télé ka dóori journaliste ñoo fi jóge tey waxuma laa ñoom ñii. ñoom bu amut sens seen mandat seen nguur yéegu booy koy gën a gudd. parce que ay war dong lan ko ay war. tamit euh, bëggoon naa xam yow. Euh, ceeb bi bu ñëwee député yi lan koy jox ñu di ko jaay député yi jaay ceeb bi naka yi jox député yi ren dañ koo jaay xam nga ne yooyu député ñu jox la mhm. ñu jox la ceeb au lieu nga jox ko ña nga àndaloon di politique nga dem xool ay commerçant di leen ko jaay danoo tekki dara. baax mhm. na loola jarax ko yóbboo ndar dëkkal ko quatrième étage daa wàcc gas baax na moom la xam mhm. ñoom ñëpp ay baax na loola Aminata Mbengue Ndiaye mooy ministre mais heureusement nag. Mhm. Macky Sall du ko moomul depuis ministre parti socialiste. Mhm. kooku a jox ministère. Mhm. kooku mooy cadre supérieur. mooy taxaw discours du xooli fooy taxaw wax français yi fàtt tarat. barki démb benn député wax na ko assemblée. nee na Aminata Mbengue Ndiaye day recevoir ba deux heures. mais pourtant ñoom ñii moom parti bi bokk affaire lu ko def. amuñu woon tuubi cent cinquante mille. amuñu woon tuubi cent mille amuñu woon tuubi deux cent mille. ay wax la sagar yi bon la daan sol bi ñuy opposé ñu fël leen ñu ne dañuy sañ tax ñu ñuy nangam da leen a dëpp man day ba may opposé dama daan def ba mu tey bi yor sama xaalis la di jox nit ñi lu ñu jënd lu lekk moo walaakaanaat tey Macky Sall ma walaakaan waaye man man cadre supérieur laa woon leer la waa dara ko dos gi waaw tamit mu bëggoon a xam yow maanaam politique bi kañ ci dugg ci Macky Sall laa duggee ci politique mhm. dañ koo dàq assemblée ma talal sama mu ñëw màggalu sëñ Seex ñu ne ma kii Macky Sall ma talal sama ñaari baaraam dara ko doos léegi ma dara ko doos laay laay defee émission bi mu ñëw gaare musta dugg Touba te sama place musta dugg Touba te sama buntu place ma dem liggéey politique ko jël risque moo xam ne nii sama bakkan na cay jàkkaarloo jigéenu PDS yu capable waaye man benn jigéenu PDS su taxawee ci télé tey wala rajo di xam Macky xam na ne soo da daa mer toog fam toog mais mosuñu maa poste dama liggéey dañ koo liggéey ah mu jox leen di man ma nekk ci di leen xuloolu xeex maay seen yatu xeexu kaay bu dee mën a duutu ñoom ngi toog di leen déglu màggalu Touba bu jàllee te recevoir moom xam ne pare naa ñoom te ca buntu kër Serigne Touba ko fa laay def conférence de presse fa laay wooyu journaliste yépp ñuy ñëw kenn dootu ko fi toog waaw euh, comme euh, ni nga ko waxee maanaam ministre ma ko waxee woon sànq ñu xuusaat ci politique bi ki nga xam ne ni mooy euh, ministre de l'hydraulique démb ñëw na fii fii ci biir Touba yow maanaam gis-gis luy sa gis-gis yow. ministre yi bu ñu dugg Touba léegi dootuñu woo kenn. Mhm. léegi dañoo am ay gendarme ak policiers yu leen escorté. Mhm. waaye ba nga xamee ni ñi ne wuloo dugg Touba. Mhm. Touba oral la ñu daan ñu xëy suba cocc fa ba 3 heures du matin ñu ànd ak ñoom dugg biir Touba. tey am na ñu leen escorte ay policiers leen di escorte ay mutaat ñoo leen indi ba dugg Touba mais ba ñu ñemewut a dugg Touba ku ci ñëw da nga woote ñu ñëpp ñu dajaloo Touba Oil di leen xaar waaw waaw ñi xuusaat tamit ci biir politique bi ministre bi nga xam ne tamit moo ŋànk santé bi mooy euh, Eva Marie Coll moom tamit ñu ngi fi waaj ñëw vendredi ak samedi. kooku de ku leenu ku leenu ko kooku moom bu ni lim rabe yàlla ñun boolewuñ ca jar ko ñun waaw kooku moom wuutu te xam kenn Touba waaye kenn xamu ko fi waaw fii moom Sénégal kër góor dugg fekk fa ceeb bi mu di beeg borom tëraay bi njëkk ñun fii la ñuy fekk kooku moom ministre bu nekk tam Awa Marie Coll Seck man waxumay waxam yeneen ministre ka laay wax waaye waxuma waxe Awa moom Marie Coll Seck tekkiwul dara laa la wax ministre bu tekki dara Macky Sall amul ko kooku wax jeexal jeexal nay wax lakk kay gën a gaaw togg boo ci baax bëggatul ñeex su ñuy dugg Touba du woo député yi sax dinu woo ñu mais ñu ni dund gis benn ministre bu ma ci jaral jóg amatul pour jàpp ni Eva ni mooy xam ne moom est loolu moo yokk a tax sax mu dugg biir Touba ministre bu jigéen la buy ñëw tey waroon naa woo responsable yu jigéen quelque ñu ànd ak moom gunge ko mhm. mais moom chaque année buy ñëw moom doo ngay ànd bu ñëwee du ànd ak kenn ñun ñu ne sëñ Touba defoon Duudu ma mbay lan ko def nii. yëguñu ne sax ñu ngi ci ñu ngi ci gouvernement bi ñun jigéen ñi Touba yi yëguñu ne Awa Marie Coll la ngi ci gouvernement bi. ko ne am na sa responsable fii Touba. def ko chargé des missions. mu nekkal la fii base am Touba. tax nga xam ne gëmuñu Macky Sall ñun ñu xiif lan woon. te dañu regg ba ila yow diini laa la ñu jox leen di poste ñuy nguuru. liggéeyalul ko. waaw man mu bëggoon a xam tamit euh, yow maanaam politique bi nga xam ne ni moom nga doon politique ak ki nga xam ne ni mooy euh, Macky Sall APR maanaam jàpp naa ni est-ce que yow am nga groupe boo xam ne da nga koo formé bu wootu sa ginnaaw. barke borom Touba Mbacké responsable yu jigéen yu tekki dara yépp laa wax yi tekki dara laa wax. Mm-hmm. waxuma nga xam ne mu ñoo doyub ka mm-hmm. ñépp a ngi ci sama ginnaaw. Mm-hmm. ñoom ñépp ñu ngi sama ginnaaw. dama ne màggalu Touba lan ko may. bu nu recevoirul koy suñu digganteeg moom fa lay. ndax ñun du ñuy jàmm am maamam jëndutoon suñu maam politique taxut a nekk mbaam waaw jërëjëf comme kàddu yi ni nga ko waxee tey jii ñu nekk ci débat politique ñu ànd ak seen télévision leerlu point com ñu ñëw tey jii dalal ki nga xam ne ni mooy Soda Dieng ñu laaj ko moom moom mi nga xam ne tey moom la ñu dalal ñu laaj ko kàddu yu mujj maanaam ñu tëjee émission ah di sant yàlla rek mm-hmm. julli ci yonent bi di ñaanal xalif général bi na ko waxee di gërëm di leen sant ci invitation bi ndax lii lu am solo la ñu invité la nga wax sa doléance waxaale doléance ñeneen ñoo xam ne dañoo sonn ci parti bi man rek la ñuy jokkoo léegi ndax xamal ne maa ci pànk maa maa ci jalaas ku ci ñi am naqar ñépp fii ne dañuy ñëw sama place bi ma seet di di di di waxtaan ak man di ma woo téléphone xanaa sa gëri nit yu tekkiwul dara kay ñoo may romb di ak garas galto bërki dem bii doomu ñëw na sama place nuyu ma saafonteeg man te mënoon na ne sëtub sëñ Tuubaa la waxtaan ak man te mu yoon xam ne la ma am moom sëñ Fallou koo ko defal Macky Sall defalu ko mhm. jërëjëf maa ngi sant ñëpp di leen remercier mhm. gërëm di leen sant tey jii euh, ñu ñëw euh, ci débat politique ngeen ànd ci ak seen xarit seen doomu ndey euh, Soxna May Touré mu présenté leen li nga xam ne ni mooy débat politique bi am tey jii le 19 11 mois 2014 kon nag ñu ànd ak suñu télévision leral point com kon nag damay wax ni kàddu gi fii lañ koy dog incha allah ñu dajewaat ci yeneen débat politique di leen wax.